Eh, nga foog ne di nga maam ñoom seen wax yooyu wax ju am importance la xeesa buy dikki nan nga foogee ne xeesa na lay dikkee tey yow man ngaa xam ne xeesa bu dikkee ndax day nekk eh, eh, séeréer wala day nekk wolof wala day nekk tukkulal wala lu nekk jullit lay doon waaye nu may dikkee waaye bu dikkee daal day xam ne xeesa yàggatul de la ilmun li saati kon nag moo tax gis nga damaa bëgg ñun suñu bopp suñu bopp it euh, musalimatul kasaab ci jamono yonent bi jamono bu nekk musalimatul kasaab dina am musalimatul kasaab dafa nekk ci yamaama ba mu defee mu daal di oote moom itam yonent la te kat gëmoon na kat ba ba dikk ànd ci diine ji mu dem beru ne man yonent laa daal di yóbbu délégation ne demal leen ma ci Muhammad ne ko woo demee léegi na nekk foofa de doxal. ma nekk fi doxal su ko defee ñu juboo di liggéey di liggéey diine ci <laughs> li li am doon ci jamono yonent délégation ba mu dikkee yonent bi ne ay ndaw day kenn du leen rey waaye konoon ma rey leen waaye bu demee tudd musaylimatul musaylimatul kasaab musaylima kar kàccoor bi mu musaylimatul kasaab nag du fi jóg ba tey waaye yow koo xam ne boo dikkee bëgg a bëgg a bëgg tey ne yow yow sabaatu dina jaa ko jore yow jànguloo be moo xoloo alquran mënoo firi benn ah xul wala mi gën a yow mënoo ko firi dégguloo addis te ñi fi oote ñi ñëpp kat tey tey ñu ci bëri lu may seet jox leen alquran ne firi ma waa léegi kon nag instant bu dikkee bëgg a gindi nag waa jamono kon nu mu leen di gindee gannaaw jàngul arab xamul dara ndax kon nag kon yow ni nga oote kon li ñuy sa oote bi lu mu ñu tekkil aka jigéen teg mu sëy lu ma tukka saab kon nag la elmu lisaati kon nag kon daal maa ngi yaakaar ne fen yi jog daal bootul ESA dafa am lu muy signalé fala tamtarun na bul weerante bihaa ci loolu nit ku dikk naan la maay nangam nangam bul ci weerante <laughs> ah dafa am benn taalibe ci jamonoy Baay Ñas mu oote ko ca Nigéria bam ko oote ñu wax ko Baay Baay Ñas bind ko leetar ne ko ñun bu Isa dikkoon te it ñun yonent yàlla Muhammad doy nañu sëkk te nag li nga oote ak daanu la jël bu rëy la xanaa bokk la eh, bokk ci xeetu Muhammad xeetu yonent yàlla nga bokk ci moo doole nga bokk ci nga nekk Isa ndaxte Isa su ko mënoon bokk ci xeet bi Muhammad su ko mënoon bokk ci xeet bi yow bokk na ci ki nga ne moo gën a kawe ci yàlla boole ci nga dem di daani sa bopp ba man may di may may xut lu ma lu ma xamul ñàkk fayit la waay man de waaye li ko indi nag comme sénégalais yi jànguñ alquran xanaa toppe bi yaa ma neex lañ nekkee seetal ku la gaa yaa ngi ñëwlu yenn façon grand bu yoo xamante ni fi nii laa ilaha illallah xaay bu bëri koy ñëw su ko defee buñ ci duggee nag ak gàngoor gi nag boo déglu bi xool te kat boo demee boo demee gis nga eh, kii monsieur Dajjal bu dikkee bu dikkee jigéen Ah, ak jigéen ak xale ak nitu kaw-kaw xam nga kaw-kaw moo gën a gaaw a yéem <laughs> gis nga fi nii ootekat yi boo leen seete ñi ci ëpp ña leen topp ay jigéen ak i xale ak i kaw-kaw waaye koo xam ne intellectuel bu jàng ba pare da nga intellectuel boo ko def intellectuel xam ne ñu koy def ñoo xam ne ay dof lañ ndax fañ leen jaaree moo tax ñu dof waaye yaakaar naa ne borom xel moo xam ne dafa def xel moo bu wér péng pour mu toog ñu koy nax na ko man maay insa wala man maay diw sàngam moo topp ah déedéet kon nag falaa tamtarunna biha ah wattabi'uni topp leen man yonent ba wax ne topp leen ma xaasa ngeen topp ma bañ a ooti naan diw ak diw la siraatul mustaqim li mooy siraatul mustaqim topp yonent bi moo boobu nga xam siraatul mustaqim xoolal la la alquran wax lala la ba wax nga topp wala yeesu dana ko ngeen la bu dee bu leen détourné a seytaan seytaan ngelaw bu leen seytaan détourné ci yàlla ñu lay bind innahu moom seytaane xadduwun mubinun lakum ndaxte moom yàlla xamal ne seytaane seen noon la bu leen topp seytaane xam nga luy seytaane mooy satana koo xam ne boo ko toppee mu sori la yàlla kooku mooy seytaane la lay xamal ne nag seytaan la mooy nga amoon diina amatoo diina nga juboon jubatoo nga amoon fula amatoo fula ma daane loolu boo ko defee rek yaa topp seytaane waaye koo topp mu yokk lay njub diine baax kooku du seytaane kon nag alquran xamal nañu ne kii ku seytaan nii la mel moom tey xadduwun mu biinun lakkum ñeel leen kon nag ñu nga nga nga rek